combat mm. bi jeex comme ça ñu toog si waxtaan incha loolu manqué wul Gris si combat bi. bon comme nee lu ma si wax donc vraiment. Ah. <laughs> li ma si gën si wax ni sax ëpp na. li nga si wax ni sax ëpp na waaw ah, bëgguma sax ñu siy tudd di si wax quoi. waaw ah. gisatuñ tamit Moussa Gningue. Moussa Gningue dafa tawat. ñu ñaan yàlla yëkkati. ah dafa tawat ah dafa tawat donc écurie Fass lu mu manqué bari na de. non pas du tout ah. ah. <laughs> amul lu mu manqué amul. dara ah. ah, lu manqué lu mu manqué day kay da nga naan. Moussa Gningue la ñu manqué la c'est tout. Moussa Gningue waaw Moussa Gningue. vraiment.

du ma du ma si wax donc hmm. euh, vraiment li ma si wax sax li ma si jot a wax noonu it hmm. pour yow sa ëpp na waaw ñoom Ibrahima Mbaye la impliqué woon nañ leen à cent pour cent si combat bi waaw impliqué ñooñu parce que face mooy bëri hmm. ñoom ñi ko sewoon waaw ah gis nga Ibrahima gis nga Socé ah, face mooy bëri donc euh, c'était un peu difficile si si si kii bi rek euh, diggante bi soriyaayu beex. waaw dem demalante beex kenn loolu kenn kenn mënu ko. diggante mm-hmm. Mbao ak euh, Dakar. Mm-hmm. avec la circulation. Mm-hmm. man pour ma jóge fële dem fa fële. ñaata yoon nga def Mbao. mbaaw Mbao ñaata yoon nga fa dem benn yoon ñaari yoon mbaaw pour pourquoi nga ne benn yoon ñaari yoon. non da nga wax circulation be ak affaire mané ma ne yow ñaata ñoo nga dem Mbaaw. toujours ba ñu commencé ba léegi antenne ñu fa lay dem. ah da une fois. Ah. donc mun plusieurs fois lay. Ah. Euh, durant presque un mois ñu ñu ma ma maa ngi fay dem. Ah, voilà donc circulation bi. Hmm. da fay metti man bu ma jógee dem fi Mbaaw. il me faut 3 heures de temps 3 euh, hmm. heures la fi joggé pour mun a hmm. Mbaaw à 5 heures 6 heures. donc circulation bi nekkul de fait vis à vis nu mu tëdd ñoom it bu ñu bëggee jóge fële ñëw tamit. ils ont les ils ont les mêmes problèmes. donc euh, yombul daal. mais est-ce que lolu du andi problème à face kii mu yéen mënu leen dem ñoom mënuñ ñëw. entraîner mais si mais loolu. daal l'avenir loolu occasionnel la woon quoi. Ah. occasionnel la woon face dafa am base bu muy entraîner. Mhm. on a am na yàlla defal ñu am nañu deux deux emplacements. Mhm. Sakura Badiane. Sakura Badiane ak Ibamar. ak Ibamar

donc il faut que base à la Médina. Ah, l'arène nationale di war am base à euh, Kër Massar di war am base euh, au Parcelles Assainies mu gën a yaatoon mu gën a baax pour mu mu gën a détecter waaw ni mu gën a rek waaw samp ay base lu jeex moo tax ma gën choisir mhm. euh ñu bolé ci Ibamar mhm. donc euh, fu gox yi ni mu ko gën amé rek mhm. day gën a sama parce que dañ dañu dénk la lutte olympique ak ak ak bis bis wrestling donc ñaar yooyu ñu ma dénk yëpp c'est pour les Olympiques 2026 il faut des des gosses de 11 à 14 ans 2024 2026 euh 2026 ñoo ñoom ñoo ñuy représenté ji. Mhm, donc kon nag base bi mu gën yaatu. mu gëna baax. mais le 7 août euh, lu rëyoon la yéen si yéen de. Ah. génn le 7 août bi passé parce que si le Mbaye gay génne won aduna 7 août 2021. Mhm. moom moy fondateur écrit face mhm. gribordo di bëre bëss bobu bésu anniversaire bi. ñen jël ci dafa mané bëss bu tiss la ci yéen de. bon tiis na si peut-être si ñu rappelé wu suñu mag. nekkoon jàmbaar si làmba ji. yëkkati làmba ji ba fi mu toll vraiment. ñu koy feetal foofu bu ñu bëggoon. bu ñu sañoon sax duñ ko duñ ko ko euh, kiiyee foofu. waaw ne fekk ñoom temps ba. vraiment ñu toog di ko ñaanal di ko wàcceel kaamil. Hmm. vraiment di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla xare ajana. ah ah loolu mi naw ñi nga xam ne bi jiitu nañu. Hmm. Euh, yàlla xare leen ajana jéggal leen hmm. ba xare leen ajana. doon na gën a rafet nga xam ne loolu set bi du tombe du tombé un combat. du tombé un combat waaw du tombé un combat mais combat bon man j'ai l'habitude de grand jour. aw ma vraiment. aw ma ci problème bëri la. da ngay daan mu daan la rek. voilà kon Gris ba léegi mooy troisième tigre de ah mais euh, euh, euh, amul beneen trois beneen beneen tigre day waxaguñ ko ñu beneen. quatrième tigre bi kan la kon. am na moom tuddaguñu déggoo moo tax ma leen tuddaguñu beneen tigre. à ah. ah, part Gris donc. à part que tu dois gagner ben tigre ah, donc euh, euh, nasi fofu lay yam mhm. wala day amat yenen ti ay ay ay yenen yenen yenen yenen yo gis nga un 4e un 4e ah. si boy yi nga yor ni gis nga si un 4e bon duma wax wax tigre ben gis naa si yeneen champion ku mel ni Serigne Ndiaye. waaw ah, kooku ñëpp a d' accord For Forza. waaw euh, naka lañ koy. Gris 2 euh, euh, Gris 2 ñoom mm-hmm. ñëpp ah. c' est général bi ñu doon wax léegi. waaw ah Lacrosse. Mm-hmm. vraiment ce sont des espoirs. waaw qu'il suffit de travailler sérieusement. Mm-hmm. donc ñu ñu taxaw comme ñeneen. ñu taxaw waaw il suffit de travailler rek nga jax jaxewoo rek. Ah. jaxewoo ah liggéey jariñu ah. Mm, voilà liggéey jariñu dëgg la. Ah. Balla Gaye daan la ñaari yoon en 2012 2022 10 ans.

say poulain lay bëre manax manax bàyyi Balla Gaye la woon. waaw mais sa yaa andi ay poulain. waaw maa indi ay poulain ay poulain yu daan comme ma daan indi yeneen poulain si yeneen mbëri ñu leen di daan ñuy daan. ñu leen di daan. Mm-hmm. mais Balla man ax bàyyam la woon. mais kon yow résoudre ko équation Balla ba léegi de. résoudre nañ ko c'est-à-dire que li problème yëpp mooy euh, problème bi yëpp mooy euh, euh, le gars. Mm-hmm. tolluwul à son un gars qui a resté 4 ans kooku mhm. pour mu ñëwaat nekkat autopsie c'est tout un problème mhm. voilà kooku par chance là. rek mu mën tenir normalement li mu tenir nii ne sax jàmbaar la voilà un gars bu ñëwee bu ñëw bu ñëw bu mhm. ñëw adversaire am mu mën ko toucher euh, rëppaloo ko donc <laughs> damay wax ne boo ko doon seetlu da nga naan kii jàmbaar la waaw si sa potentiel euh, poulain yi nga yor am na ko si mën a teural balla ngay de mais duñu dañ jul tomber dañ jul dañ jul tomber balla ngi ci mi ngi ci pun carrière donc ñom pour ñu wat pour ñu jall bu dé ay sa ties bay mëna tay ñu wat aso à leur niveau donc na fekk balla hmm. dina dina dina ya, téggi ñu tomber kon amo sens dal teural balla bala nga baye eh? bon man xalatuma pour bon duma am rancune ci yoy quoi. non non je sais waaw duma am euh, duma am problème mu. ki mhm. kii wala daan son problème mu ko wara a waaw vraiment man si si teg naa sama bopp. Mhm. un très grand sportif. Mhm. un très grand entraîneur. donc man du rancune boobu naan diw daan na ma dama ko wara a daan wala diw nangam war ko am. diw am na nangam war ko am bon vraiment man. tol mo niveau bobu daal. waaw duma ko sax.

dafay changer ndax données yi mu amoon. Mm-hmm. moo doon rapidité yo mo man dan ko ñew di ko ñew di ko di jeexal combat donc nekkut nekkatul. Mm-hmm. dans sa si si si yoon donc légui mm-hmm. euh, aptitude bi nga mëna ko di ko calculer waat. da nga xamné ne nit ki ko xamné ne bu ñi bu yàgg bi sifflé dafa. day def ndank donc la nga dan calculer né ki kat il va attaquer très rapidement. <laughs> nekotul donc données yi dafay changer voilà ñi lan ngay wax ñi nga xam tamit né nañ physiquement il n'était pas balle bon la làmb la am. Hmm. mun na am si préparatif yoo xam nga préparation. Hmm. dafay yàgg. waaw ah, le mbër nit ki da ngay xëy le matin. Hmm. ba le soir yaa ngi say préparatif. amul benn doo am benn laps de temps boo xam ne sax. comme ni nga daan am jour jour normal. nga daan xaar ma récupérer pour une heure de temps. xaar ma récupérer donc doog doog doog donc làmb kon le jour le jour yi moom dafay. dafay métti parce que toujours ngay am loolu. ngay jékki-jékki tey affaire boobu daal di ñëw. di ko toogaat balaa ngay bëriwaat un an nga ñëwaat. nga ñëw xëy suba ba ngoon. Ah, sa jaabante fii joxe fi sarax mm. sangu fi jaabante mm. do reposé wu ben benn yoon doo am ben temps temps temps temps temps temps temps de repos donc yooyu yëpp mën na joué si nit waaw tey plus day plus que muy gëna a âgé mm-hmm. euh, plus que muy gën di am voix donc yooyu dafay joué day changé doon day changé moom Boy Niang 2 amoon si loo si sànni absolument comme sama ñaari dom la ñu vraiment ah. <laughs> absolument voilà d'accord donc euh, ki mo nekkoon euh, Amadou katidjo andi woon Gris Bordeaux ñu waxtaan si combat Gris Bordeaux Balla Gaye 2 euh, monsieur Diop lan ngay tàggoo. waaw daal di ñaan rek ñu xam ne rek lamb sport la ah. Mm-hmm. tey da ngay daan tey ba léegi tamit ñu ñu daan la. Mm-hmm. nañ koy teg si cadre sport rek. waaw vraiment arrière pensée yenn yi vraiment man. Mhm. man man Amadou man. dugg dugg dugg dugguma si yooyu bu làmb ji jeexee daal. Mhm. jeex na. Mhm. waaw entraînement la ñuy defaat. waaw ku ñëwaat liggéeyaat. wuti wuti wuti wuti waat leneen daal. ñu ah. xam ne sport la tey nit ki daal dafay gagné. waaw ba ah. léegi daal ñu ñu ñu gagné ko. Ah. Sénégal yàgg nañ kaay gagné. waaw ñu ngi soog a am. berkait dengan aku football, uh -huh. mungkin seorang kup d'Afrique. D'accord. Oui. Ah. Donc l'espoir là, c'est pas dans le côté lui. Mhm. Lamba, lamba, vous avez lamba pour tajay. Mhm. Voilà. Un conseil pour Bala Igri. Hein? Un conseil pour Bala Igri. Conseil. Wa dañ nek ci entraînement rek demu ñu ay man day ay ay xalé lu ñu am. Il suffit que ñu xëy na lañ daan liggéey la ñu liggéeyatu mhm. nañ daan euh, def la ñu deful donc nañ ko si def mhm. te nit ñi ñoom ñëpp mhm. Balla Guédiawaye bi yëpp wax la dafa Guédiawaye sax rek moo nekk si gannaaw ñu nekk si gannaawam dafa ne Ndakaaru bi yëpp dañu nekk si moom ah tey wax ma leen Ndakaaru mais Sénégal di fam ñu bari ñu xam ne ñu nekk si moom xam di satisfaire nit war nañ mën a ñëw indiwaat fi nekk seen âge mën nañu mën nañu indiwaat sa si na ñu am nekkoon seen début. Mm-hmm. waaw bu ñu ko travail dafay day day mm-hmm. day ñëw mm-hmm. il suffit nga ñu joxewu waaw jërëjëf Amadou kontaan nañu si waxtaan bi. Uh-huh. xam naa dinañu gisewaat avant prochaine échéance yi nga xam ne yaa ngi koy jëmmal. ci wàllu lutte olympique dinañ si gën a yaatal gën si waxtaan. incha allah jërëjëf Amadou Kati merci.